di amati mbégte bu baax a baax ci taxawaat seen kanam ngir fa yéene ànd ak yéen ci leçon informatique yooyu nga xamee ne ñu ngi ko doon def mu aju woon ci wàllum enregistré benn vidéo boo xamee ni dañ ci leeral benn application boo xamee ne gis nañ ne nit ñi soxla woon nañ ko loolu ndax nekku doon gule tey ñu koy njëkk def waaye jamono ji ñu nekk Maroc amoon na ñetti application yoo xamee ne jot na ko fa en enregistré mu aju woon ci biir Microsoft Office benn bi nekkoon Microsoft Word ak Microsoft Excel ak Microsoft PowerPoint yooyu yëpp jot nañ ko enregistré ci jamono bi ñuy nekk Maroc waaye eh, toxutoon ñu jàll ngir na xataayu jamono ji ak yi nga xam ne moo ci moo ci moo ci aju ba loolu la waral tey nag eh, ñu gisaat beneen application boo xam ne mi ngi ci biir Microsoft Office ñu jàpp nit ñi xëy na dañ ko soxla moo tax ñu newaat tamit dañuy ñëwaat ngir jaar ci yoon wi nga xamee ne jaaroon nañ ci ak ñett application yooyu te mooy jël application bi leeral ci suñ kamtulay kattan bu ko defee nit ñi mën cee jariñu te yàlla rek tax bu ko defee tamit comme ni ko daan defee ci yu njëkk yi rek mooy que ni xëy na dafay vidéo bi prinçay ma xaw a gudd waaye toujours rek ki nga xamee ne moom mooy jàng moom mooy xool li nga xamee ne moom moo ko ci Eh, moom la mën a xam ci vidéo bu ko defee mu jël loolu bu ko defee pause ba ëllëg ci mu ñëw di ko def noonu ba keroog muy jeexal li nga xamee nag mooy application bi application yi ñu leen fàttalati na rek dafa xaw a yaatu lool ba nga xamee ne mboolem li ci nekk détail par détail duñ ko mën a wax waaye rek dañuy xool li nga xamee ne moom mooy li nga xam ne moo ci mënta ñàkk ci élève wala kii jàng ñu jàpp ne lii dana ko soxla incha allah détails yooyu yëpp dañ ko jox bu ko defee nag li ci des moom ci góorgóorlu boppam ci lay gëstoo di gëstu ba am yeneen yoo xam ne sax xëy na sax ñun ñii di ko wax xëy na àgguñ te loolu lañ leen ñaanal mooy que ni ngeen xam ci loo xamee ne ñun ñi xamuñ ko ci kon loolu rek ci góorgóorlu élève bi ak ci farloom ci lay fexe ba àgg ci yeneen yoo xamee ne ñun jotuñ koo leeral ci biir vidéo bi tey jii nag jàpp naa ne ñu ngi ci le cinq ci arrondissement 19 nekk 4 heures du matin euh, xam naa ne bu ñu xëyee incha allah moom mooy nekk korce gi kon ba loola waral xam naa tey vidéo bi moom dañ koy leeral leeral boo xamee ne euh, tàmbali bi rek la jël incha allah leeral application mooy lan leeral kel ki euh, wàccoon application bi. boo ko defee rek yeneen vidéo yi nga xam ne moom moo ci topp incha allah leen euh, ci leer laat yeneen yi nga xam ne moom moo ci gën a jóg vidéo tay bi ban vidéo ban application ci lay jëm application bi mu jëm ñu ngi koy woowee Microsoft Publisher Microsoft Publisher moom benn application la boo xam ne dañ koy utiliser ngir di defar ay modèle ak ay publication yoo xam ne dañ ko bëgg a tasaare wala boog dañ ko bëgg a imprimer wala book dañ ko bëgg a euh, affiché fenn ba nit ñi mën ko gis mboolem lu aj ci wàllum publication ak ak mboolem lu aj ci wàllum modèle yi Microsoft Publisher da cee efficace lool lool ba taw lool waral yu bare bare yu ñuy defar ci aj ci yu mel noonu moom la ñuy jël ngir di ko defar bu ñu xoolee Microsoft Office Word 2010 moom ak Microsoft euh, Publisher xaw nañoo am tuuti tere mooy xaw nañoo nuroo waaye nag taxut ñu bokk ay fonction yoo xamee ne moom la ñu def bu dee Microsoft Office Microsoft Word 2010 moom liggéeyam mi ngi jëm ci li ñu woowee traitement du texte traitement du texte boo ko waxee saisir texte da ciy dugg insérer ci ay photo wala insérer ay forme da ciy dugg ak mbooleem institution yi nga xam ne moom moo caaju bu ko defee nga xamee ne buñ mësaan dugg ci biir Microsoft Office Word 2010 ci barre de bi dañ fi fekk ñu bind fi dañu woowee document waaye nag Microsoft Publisher bii nii moom buñ ñëwee ci moom liñ koy doyee mooy defar ci ay modèle ak ay publication nga xamee ne dañ ko bëgg a defar waaye it buñ xoolee ci barre de titre bi composition moom moo fee nekk pa document ñoom ñaar boo xoolee seeni onglet mën nañoo wax ne dañoo nuroo lool lool ba jéggi dayoo xëy na rek li ñu gis ci publicité te gisuñ ko woon ci Microsoft Word mooy li ñu woowee création de page te création de page bi onglet boobu sax ba xaakaan naa sax bu ñu demee ci Microsoft Word bi dana fa nekk ba tey tamit Microsoft Word boo xoolee ay onglet tam buñ bëggee comparé ñun ñaar ñu jëlee duggee ci biir Microsoft Word 2010 moo nekk ni ngeen gis moom mboolem lu ci aju woon ci ay mbir jëloon nañ ko kon du jar ñu ci bamtuwaat bi ci leeral loo xamee ne leeral nañ ko kon nag dañuy def benn tuuti comparaison bu ndaw rek si ñoom ñaar ñi boo xoolee kii ay boo xoolee gisoo ci fi ñu woowee création de page waaye bu ñëwee ci biir Microsoft Publisher dañu gis ne am na fi ñu woowee création de page boo xoolee li ñu woowee onglet fichier moo nekk ni am na fii onglet insertion wala onglet accueil mooy onglet principal bi moom it am na fii am na ci biir Microsoft Publisher onglet insertion moom it noonu onglet publipostage noonu ak onglet diffusion ak affichage waaw bu ñu xoolee du ci mel ne euh, mise en page bi xëy na boo xoolee doo ko gis ci biir fii maam onglet bi mise en page bi nekku ci xëy na boo xoolee it euh, mise en page boobu xëy na dafa am ci biir fu muy nekk incha allah dañ ñëw bañ bi dana gën a leer waaye comme ni nga gisee ci biir Microsoft Word onglet di PDF nii ñëwee ci publisher bi onglet di PDF noonu waaye boo xoolee li ci des ci mboolem groupe de outils yi nga xamee ne dañ ko daan utiliser boo xoolee ñëpp ñoo ko bokk moo tax dañ leen incité bu baax ci élève bi góorgóorlu xam leçon yi nga xamee ne moo aj ci Microsoft Word ngir ne bu ñëwee ci publisher du am problème boo xamee ne moom moo koy ci dal te it tamit bu mësaan dugg ci biir Microsoft Word da gis ne dafay am benn page vierge boo xam ne ne dafay dafay dafay tàlleeku gudd gën a gudd lool te fii bu ñu xoolee page bi boo xoolee page bi ñu gis ci biir biir Microsoft Word moom moo ko gën a yaatu te it moom moo ko gën a tàllee te it page Microsoft Word bu ñu seetloo fii nii amut lenn loo xamee nekk ni fi maanaam page yi dafay toftaloo waaye nag da ngay wàcc suuf te buñ ñëwee ci fii page bi dañuy def solo waaye fan la ñuy def solo waaye mooy ci côté fi ñu woowee navigation bi nga xam ne boo xoolee bi mooy première page bi deuxième dafay ñëw nekk fii troisième ñoo nekk foofu ba keroog ainsi de suite ba keroog muy jeex kon loolu tuuti petit comparaison la woon rek pour rek élève bi xam ne Microsoft Publisher ak Microsoft Word xaw nañoo war a tuuti te it Microsoft Word maanaam comme ni ko waxee woon mooy traitement texte yi lay jëriñ nga xamee ne c'est-à-dire texte bi guddi da ciy bokk waaye Microsoft Publisher. kon boo buñ seetloo foofu dañ ciy déggee ne moom traitement texte taxu ko jóg waaye defar ay publication ay ay ay modèle moom moo ko tax a jóg ba looloo waral daanaka buñ seetloo ci biir Microsoft Publisher texte yi ñu fay bëri ni du nekk texte yi yu gudd lool lool daan dafay nekk ay texte yu yawmaa yoo xam ne dañ ko ci yi photo yi di du nekk photo yu rëy lool waaye day fay nekk ay petit photo yoo xam ne ne moom it dañ ko ci insérer ngir lan ngir defar suñ publi suñ publication bi ñu bëgg a defar wala suñ affaire bi ñu bëgg a defar bu ko defee nag maam naka la ñuy def ba dugg ci biir publisher publisher comme ni ñu ko daan xamee euh, dañuy dem démarrer ci suñu machine bi nga xam ne jor moo xam Windows 10 wala Windows 7 euh, bi mooy 7 bi bu dee Windows 8 moom xëy na boo ñëwee ci euh, onglet accueil bi xëy na koo fekk ñu bës fi ñu woowee lan tous les programmes ñu bësee tous les programmes wàcc fa fi bind Microsoft Office boo xoolee moo nekk nii ana publisher publisher moo nekk nii mooy p bi nga xamee dafa mel loxo bu la ñu bañ a jaawale p bi nga xamee ne mooy p bu orange bi ak p bi nga dafa xaw p bi moom mooy p bi nga xamee ne mooy Microsoft PowerPoint point dee bii nag du Microsoft PowerPoint waaye Microsoft publisher la kon buñ ciy dugg application bi ñu xool bu baax ba xam fan la nekk kon ñun dañ ko indi woon ci bureau bi ñëwee moo taxoon ndegam ma ngi koy soxla lu bari moo taxoon ñu def ko ci bureau bi ba nga xamee bu ko soxlaa rek di ñëw cliquer ci daal di dugg buñ cliquer deux fois mu indi ñu suñ page bi nga xamee ne maanaam mooy euh, kanam gi ngeen jàkkaarloo nii boo seetloo lii mi ngi taxaw ci ban ci euh, rang yi mooy dañoo woowee rang nouveau te bu ñu mosaan dugg ci biir Microsoft Word directement rek dañuy duggul ci page bi fii nag boo duggee doo dugg directement ci page bi waaye da lay indil benn euh, kanam goo xamee ne foofa dafay indi ay modèle ak ay exemplaires yoo xamee ne moom dafay jàpp na yow benn ci xëy na am na boo ci soxla bu ko defee moom dala koy proposé yaa xool bu fekkee ne yii mu la proposé nii méngoo na ak sa bëgg-bëgg nga dugg ci bu dee méngool ak sa bëgg-bëgg nga dem ci feneen foo xamee ne fa ngay tànn sa beneen page boo xam ne page verte la doon modèle yow mu lay indil bokk na ci li ñu wooyee brochure brochure moom xeetu euh, document la wala bi officiel boo xamee ne dafay mel nañ koy xaw a lem nga xamee ne bu ñu demee ci banque yi ak yenn société yi nga xamee ne dañuy faral di publicité seeni maanaam marché bi dafay am wala boog seeni mbir yi nga xam ne moo ci wàllu entreprise bi dañ ko faral def nga xamee ne client bu ñëwee bu ko gisee da koy jël liir bu ko gisee lu ci intéressé mu dem laaj client maanaam ki nga xam ne moom mooy yor wàllum wax ak client yi na ko lii ngeen def ci seen annonce yi nii lan ngeen jublu ak nan laa def ba man koo am kon brochure mbir la boo xamee ne dañ koy soxla bu baax a baax bu ko defee tamit benn bu ci nekk ci yëpp rek bu boo ci cliquer da lay indil ay modèles yu baree bari ci biiram bu ko defee yow yaay xool ba gis li nga xamee ne moom nga bëgg exemple bu fekkoon bii laa bëgg dama ci cliquer benn yoon bës créer wala bu ma neexee man maa cliquer deux fois sans ma bës créer yaay xool boo xamee ne rek moom nga ci bëgg bu ko defee it bu mu tànnee ba gis benn bi nga xamee ne moom laa bëgg ba pare boo seetloo ci fii ci ngay tànnee couleur yi nga xamee ne moo ci nekk boo xoolee couleur bi daf koy changer ci ay mbir yoo xam ne xaw nañu wute bu dee fii ci ngay tànnee police bi nga xam ne boo duggee ba ci biir mu nga bëgg mu ciy nekk bu ko defee ci fii nii moom it dana la indil ay quelques euh, bois de dialogue yoo xamee ne dalay wax na la lan nga bëgg ci yooyu noonu formulaire yoo xamee ne yow yaa koy tànn exemple biñ cliquer fii dañu indi lañu bon de commande nga bëgg wala bokk bulletin rapport nga bëgg wala boobu bulletin de inscription nga bëgg yooyu yaa xoo ba gis bi la ci neex bu la neex yi nga ne ko okkin na ma bàyyil ak bi nga xam ne bu ko defee ñu daal bés yee mu daal ñu koy insérer ci suñu page bi def na tuuti xaar bu defee mu daal ñu koy indi suñu page bi boo seetloo am na bu mu la insérer ci sa page mu la insérer ci sa page boo seetloo dafay koy indi fi ñaari page lay doon bi mooy première page bi nga xam ne mooy lecto bi bi mooy li ñu woowee verso bi nga xam ne boo ko doon tiire bu ma tiire page bi ba pare dama ko duppate daal ci tiire yi nga xamee ne boobaa lii nii mooy féer ci gannaaw page nga xam ne boobaa boo seetloo tamit page bi ni mel nii gis nga ne leer na mooy que ni dala koy lemal boo xoolee bii première lem-lem fi la yem deuxième bi deuxième lem fi lem troisième bi troisième lem fi la nga xam ne boo xoolee boo ñëwee ba tamit mooy ba ci troisième bi mooy deuxième page bi noonu la mel bu ko defee it bind yi ngi ci gis nii ak mboolem photo yeeg lu ko yi nga ci gis bu mu la jaaxal moom yii mu la indil nii benn bu ci nekk rek da koy supprimer bu fekkee ne neexul exemple photo bii mu indi fii bu fekkoon ne ma ko bëgg a changer damay ciy ba mu bi supprimer bi bu la koy dindil bii tamit gis naa ne neexu ma ma koy dindi bii tamit gis naa ne seen symbole la ma koy dindi texte bi tamit gis naa ne texte bi français man ci man fekkoon man franc arabe la bi wala bu ko fene man bu ma supprimer ba li nga xam ne gis naa ne bëgg ma bu bokk may bëgg a defar bu ma ko supprimer ba pare nag commencé nag di insérer samay photo wala bokk samay forme yooyu yëpp incha allah danañ am leçon ba spécial danañ ci gën a ñëw mu gën a yaatu kon daal nga xam ne rek moom boo xasee ba ingénieur benn dana la indil ay photo yoo xamee ne dafay ànd ak ay logo wala dana la indil benn modèle boo xam dafay ànd ak ay logo wala boog dafay ànd ak ay quelques textes yoo xamee ne texte par défaut la bu ko defee yow yaa koy supprimer insérer ci ci bëgg a bind brochette bi ni mu mel nii bu ma ñëwee ci bulletin bi noonu laa koy amee moom it bu ci duggee ci biiram damay indil ay exemple yore yu bari waaye man ma cliquer ci benn bi bés créer ci côté bi à gauche wala à droite ci côté suñu côté à droite ci koñ bi wala boog bu ñu neexee ñu cliquer deux fois ci kawam bu ko defee mu enseigné ko suñ suñ suñ suñ biir euh, page bu ko defee bu ñu xoolee bii moom euh, bii mooy première page bi euh, bu ñu ñëwee ci deuxième page bi moom dafa boole deuxième bi ak troisième bi boo xoolee bii moom mooy nekk lan mooy nekk quatrième bi nga xam ne mooy page bi nga mooy page bi bi. mooy boo xoolee page boo xam ne dafay mel na dafay xaw a tijjeeku nga xamee ne moom dafay mel ne looy ub la ak looy tijji ci comme ni nga xamee ne noonu livre ak yooyu di mel bu ko defee comme ni ñu waxoon léegi ci bee rek texte yi muy léegi yëpp bu la neexee da nga koy supprimer insérer sa propre texte waaye it supprimer photo yi insérer sa propre photo waaye it logo nekk bu la neexee nga supprimer nga insérer sa propre logo yeneen yi nga xam ne xëy na du ci dara comme comme yu mel ni comme exemple yi nii nga xamee ne moom. Euh, forme yii da ko ci da ko ci def moom xëy na moom yàqu ko da ko gën a taaral bu la neexee mën nga ko cee bàyyi waaye bu la neexee mën nga ko dindi defaat yeneen yoo xamee ne bokkut ak yi nga xam ne moo ci nekk niñ amee ci brochure am ko ci bulletin noonu lañ ko mën amee ci calendrier moom it buñ ci duggee moom dañ fa gis ay yoo xam ne ay exemplaire la bu ko defee moom it yow yaa ba gis calendrier bi nga xam ne moo nga bëgg nga daal ciy cliquer bu la neexee calendrier bu ma bësee bii da koy def par mois nga xam ne mois par mois kese lay nekk waaye bu ñu ñëwee ci comme yi fii nii am na fi bind leen une année par page bu ñu ci cliquer da ngay gis ne calendrier yëpp def na ko 12 mois yoo xam ne moom moo teg bu ko defee ci fii moom it la ñu waxoon léegi ci fu maam couleur yeeg yu ni mel dañ koy mën am fii bu ko defee te bu fekkee ne fii mbind mi mën nañ ko changer fii calendrier bi ñu amal ndax dafay nekk portrait wala dafay nekk paysage mooy portrait bu ñu ko waxee mooy que dafay taxaw nii. bu dee paysage dafay xaw a tëdd nii yow yaa xool ba gis bi la ci neex nga daal ci cliquer après man loolu moo ci des ma daal définir man ban date laa bëgg a defar 2019 wala boog 2020 2021 sans départ ci at mi nga xamee ne moom nga bëgg a defar ginnaaw bu ñu ko ki pare ñu daal di pare nañ ci bi ñu choisir lan moo ci des ñu cliquer ci kaw suñu calendrier bi ñu bëgg bés créer wala boog ñu cliquer ci comme deux fois bu ko defee mu insérer la moom it ci kaw suñu suñu page bi nga xam ne nañu am moom it incha allah ci ñëw li sax boo xam ne incha allah danañ ñëw ci exemplaire yi bu ñu ñëwee yooyu yëpp ñuy wax nii danañ jël incha li ëpp ci ñoom exemplaire yoo xam ne danañu gën a leeral li ñuy wax nii moom mooy lan. bu ñu ñëwaatee tamit ci carte visite moom it noonu la mel moom carte visite yu bëree moo ci nekk yow yaa xool ba gis bi nga xamee ne exemplaire bi nga xam ne neex na la wala modèle bi nga xam ne moo nga bëgg nga cliquer ci boo ci cliquer mu insérer ci sa biir page. bu la ko insérer ba noppi nag yow xool mboolem loolu ci nekk loo xam ne neexu la ñu daal koy dindi boo xoolee loo ndam bi da def par défaut mooy que ni xëy na tour machine bi ci la jëlee rek daf ko par défaut waaye yii yëpp yow yaa xool loolu ci neexul nga dindi ko maanaam logo yeeg yi ni mel yooyu yëpp yow yaa xool ba gis bi nga xam ne neexul la nga daal koy dindi. li nga xam ne carte de visite nga xam ne moom ñu ngi koy jox ñan kay xëy na bu fekkee ne dañuy nit ñi dañuy faral di laaj suñu adresse wala ku ñu bëgg jox suñu adresse. mën na ko jox suñu carte de visite defar carte de visite bëree baax na su ne ma nga dëkk ak li nga xamee ne xëy na moo ci bu fekkee ne maanaam yooyu yëpp def nga ko ci ku la laaj ci carte ko mën a jox bu dee carte de faillite noonu nga xam ne moom carte la boo xamee ni moom it dañ koy faral di utiliser ngir di ci def ay félicitation su suñu amee yi nga xamee ne dañuy xewla dara exemple dafa am ko am anniversaire ñu far ko benn carte de vœux dafa am kenn ku am benn ngénte mooy baptême wala bokk li ñuy wax ah, maanaam lu ci lu ci aju ci mel noonu ñu defal ko benn carte boo xam ne dañ ko ci dokkale ak mboolem yi nga xam ne moo ci nekk benn bu ci nekkee rek comme li ñu waxoon léegi ci ginnaaw da ngay cliquer ci bu ko defee mu installé ci biir page bi bu ñu aneeraatee fii ñu ñëwaat ci li ñu woowee carte postale carte postale yi nga xam ne mooy carte yi nga xamee ne bu yàgg lañu ko daan bind daan ko yónnee ci poste yi exemplaire bu fekkoon ne tey jii dañoo tukki woon dem lu mel ne France exemple ñu dem ba mu yàgg ñu bëggoon a yónnee fii Sénégal suñu waajur yi dañuy bind carte bi bind ci lettre bu gàtt boo xamee ne dañoo xamal suñu waajur yi ñu ne ñu ngi ci jàmm souvent nag carte boobu bu ñu bindee lettre bu gàtt ba nga xamee ne dañ ci bind pare nuyu leen ñaana leen jàmm wax leen ñun ñu ngi ci jàmb dañ ci daan boole benn photo boo xamee ne dafay wane ne man ci ville boobu laa nekk exemple bu dee Paris la ma dem ci baa nga xamee seen seen seen seen kii boobu nga xamee ne moom moom moo taxaw ni ci laay taxaw photo sans bopp wala ba moo photo jëmmi loolu rek def ko ci bu fekkoon dama nekk ci vacance mën naa ko def lu mel ne mu fotow ci bi lu mel ne benn géej ci tefes gi wala mu foto jëmmi tefes gi rek def ko ci loolu lépp ay exemplaires yoo xamee ne ci carte postale dañ ko ci daan def ngir di ko yónnee suñ xarit yi wala bokk suñu mbokk yi nga xamee ne dañoo sorata ñoom waaye nag message yu tuuti lay nekk yoo xamee ne dama nañ ñu ngi ci jàmm bu dee étiquette yi tamit moom it ay petit morceau la yoo xamee ne moom it dañ koy utiliser ngir di ci di ci bind dara loo xamee ne xëy na bu fekkee dafa am lu ñuy affiché misaal te jii dañoo doon jaay dara dañoo jaay ay kaas mën nañ ko cee def dañoo amoon benn supermarché mën nañ ko ci bind yu bëree bëri def ko ci buntu supermarché bi bu ñu amee promotion mën nañu bind ci benn étiquette bu ndaw rek bind ci ay annonce mais suñ produit yii kat wàññi nañ ko nanga pour cent ba nanga pour cent da ko def ci biti ak yeneen yoo xam ne tamit étiquette yi dañ koy utiliser ngir loolu yii nii ñuy wax ni yëpp incha allah danañ fexe benn bu ci nekk rek ñu jël si benn exemplaire bu nag boo xamee ne buñ ñëwee ba ci biir page bi incha allah buñ ñëwee leçon yii di ñëw dana gën a leer comme yi ñu wax nii yëpp buñ ñëwee ci ci yooyu foto yi ngir mu gën a leer dañuy dugg ci bii mooy brochure brochure boo xoolee yii yëpp ay façon brochure la brochure yii nii nga gis brochure la yoo xamee ne ay société ñoo ko moom boo xool bii brochure la nii brochure la nga xam ne dafa mu nekk loo xamee ne dañ koy lem comme lem-lem yii nee nekk ndax boo xool dafa mel ne comme ni ñu ko génne woon léegi ci suñu biir euh, texte yooyu nekkoon ci page bi boo xool texte yi moo nekk nii bi mooy première page bi bi nekk deuxième bi nekk troisième buñ tourné nag suñ suñ kii bi moom it dañ ciy fekkaat yeneen texte yoo xamee ne moo ci nekk comme ni nga xam ne noonu gisee bii yëpp ay exemplaire brochure la yoo xamee ne di reparu sur l'image ni ki noonu it bu ñëwee ci li ñu woowee bulletin it it bulletin it mën na nekk bulletin de naissance mën na nekk bulletin yoo xamee ne hôpitaux yi la mën na nekk bulletin yu nekk sans dépend ci bulletin yoo xam ne moom moo la boo xoolee it yëpp ay yoo xamee ne nuru na lool ak bulletin yi nga xamee ne publisher mën nañu moom la ñu proposé woon boo xoolee photo bi yëpp dañ gis ne bulletin yi ay bulletin yoo la yoo xamee ne publisher proposé woon nañ ko boo xoolee étiquette yi comme ni ñu ko doon waxee léegi moom it boo xool yëpp ay façon étiquette la yoo xamee ne moom it dañ ciy def ay mbir yoo xam ne bind ci benn petit boo xamee ne rek dañ ko taf fenn wala boo ko ñu def ci dara yëpp ay façon étiquette la yoo xam ne moom it dañ ko faral di utiliser moom it boo xoolee exemplaire yii nii bëri woon na loolu ca biir Microsoft Publisher carte postale li ñu leen wax léegi boo xoolee nii lay mel boo xoolee di pensa ci géej gi bind ci dara bind ci petite lettre bu ndaw ndaw bu fekkee ne dafa am comme adversaire mu bind ci lu ndaw bu fekkee ne tamit ak yeneen yoo xamee ne boo ko yu ni mel yii yëpp façon euh, carte postale la yoo xamee ne boo ko bindee pare rek ci def photo boo xamee ne fi nga nekk lu gën a siiw foofa bu doon fii ci Touba xëy na jumaa Touba lañ ciy def ngir ki ma ñu koy yónnee xam ne maa ngi ci tubaa maa ngi ci jàmm wala bokk nga da ko fay information da nga koy informé nga mën ko ko wax. bu ñu ñëwee it ci carte de feuille moom it mooy carte yi nga xam ay ndokkale la ak yu mel. nga ñëw di ko di ko annonce ban année 2019 wala boog ak yenn ak yi nga xam ne moom moo ci aju yëpp ay xeetu carte bleue yoo xam ne dañ ciy ndokkeel dañoo tànn dat yi waaye am na yeneen yoo xam ne du nekk yoo xam ne pour dat la bu dee carte de visite yi moom it boo xoolee moom yëpp ay façon carte de visite la sa boo xoolee benn boog su moroom yow yaa xool ba gis ni nga xam ne nan nga ko bëggee nga tànn ci bi nga bëgg da koy defar. kon photo yii rek exemplaire la yoo xam ne nag dañ ko doon wax rek ngir mu leeral ki nga xamee ne mooy xool ba xam ne kon li ñuy wax ci carte yooyu yëpp dafa am bu ko defee rek nga xam ne maanaam exemplaire yi ak modèle yi nekkul na yii rek lañ ci am waaye même bu ñu wàccee suuf fi am na fi li ñu woowee autre modèle moom it am na fa ay annonce bu fekkoon dafa am ay yëgle yu ñu yëgle bu ñu neexee ñu jël ci annonce yi nii daal ci cliquer benn boo xoolee yëpp ay façon annonce yoo xam ne dafa am lu muy yëgle bu ñu ñëwee ci fii am na fa lu ñu woy ay bannières yoo xam ne moom it dañ koy utiliser ngir ci di bind xëy na lu mel ne Saint-Valentin wala boo ay bienvenue ci buti wala yu ni yooyu yëpp ay mbir yoo xam ne dañ koy utiliser ci bannières yooyu bu dee ci fii tamit carte invitation la moom it fekkee ne am na ku ñu bëgg yónnee carte invitation ci benn lu ñu xawale ku am tudd comme nii nga xam dafay dafay dafay def liir bi ci tànk liir bi wala ak yu ni mel yii yëpp ay exemple yoo xam ne moom dañ ko defar ba noppi. yow boo ñëwee lan nga ciy def mooy da ngay modifier rek bind ci sa rek si bopp insérer sa quelques images yoo xam ne moo nga ci bëgga a def bu dee fii la ñu woowee carte professionnelle mooy nga xam ne pour liggéey la ak ay catalogue ak ay chèque ak tamit li ñu woowee combustion rapide ak CV diplôme en tête enveloppe formulaire yii yëpp ay façon yoo xam ne benn bokk ci ak sa morom ci liñ koy doyee kon toujours rek maam moom li war a njëkk ci ki nga xam ne mooy utiliser publicitaire mooy que ni mu tànn façon passe bi mu bëgg bu ko defee nag moom nagam proposé na fii ay façon passe yu bëree bëri bi nga xam ne moo ngi soxla ba pare nag doog nag liggéey bi doog comme li ñu daan waxee ci Word ne la li njëkk ci Microsoft Word bu fekkee ne am texte boo war a bind mooy da nga ko war a saisir ba mu jeex ba pare nga a def mise en nga xam ne moo ci aju fii tamit noonu lañ lay wax moo nga ni bala ngaa def dara tànnal sa façon passe bi nga xam ne moo nga bëgg waaw léegi man dugg naa ci biir Microsoft Publisher exemplaire yi moo moo proposé yëpp benn neexuma ci man dama bëgg a créer sama propre page boo xam ne dara du ci nekk kon bu boobaa nan lay def boo leen xoolee fii ci accueil bi fii am na fu ñu bind lan page à 4 vierge ak page A4 paysage waxoon naa léegi ne leen page A4 vierge bu ñëwee fa page A4 A4 mooy ban fooy a fii ñu ngi koy muy ne mooy fooy yi nga xam ne mënuñu bindee kaamil fooy yooyu moom lañu bindee saafara fooy yooyu mooy fooy yi nga xamee ne souvent bu ñu tiiree dara ci suñu leçon yi wala bokk benn yenn ci livre yi moom lañ koy utiliser moom la ñooy àkkaat fooy la boo xam ne moom lañ gën a xam fii ci Touba fii wala boog mën ngaa wax ne fu bari ci marché Sénégal àkkaat bi àkkaat la boo fooy la boo xamee ne mën nañ ko bii mooy bu taxawee ni lay mel bu tëddee ni lay mel fooy yi nag dafa am ay ay tur ak ay ay ay kenn ku nekk. am ay eh, loo xam ne moom ngay mesurer bu fekkee ne dañoo wax ne a yokk ci numéro A lan moo tax waxuñu A kese waaye au lieu que ñëw A yokk wax lan A4 kon bu dëggee A4 kon loo ci déggee mooy que ne kon xëy na kon a am na A5 am na A6 am na a yooyu noonu it am na ñu ko noonu ay B4 b yooyu yëpp ay façon fooy la yoo xam ne moom it kenn ku ci nekk rek eh, am na loo xam ne dañ ko ciy utiliser ngir loolu. exemple buñ ñëwee ci foo yi nii ngir leeral ci tuut loo xam ne xëy na ngir mu gën a leer foo yu a dama lay wax ne la pour nga gën a comprendre foo yi ni mu demee xamal na sa numéro lu mu gën a yéeg ci kaw rek xamal na sa taille de bi mooy taille fooy bi dafay gën a wàññeeku exemple bu ma nee kon nangam lay mesurer bu mu waxee a xam la kon A1 xaaju li A0 di mesurer mesurer mais kon dafay dafay gën a wàññeeku. bu ma nee a a trois kat nangam lay mesurer xam la kon boo ko xaajee moom la A4 di mesurer bu nee A4 nangam lay mesurer xam la kon moom boo ko xaajee moom la A6 di A5 di mesurer bu ñëwee ci photo bi nii dina ko gën a leeral exemple bu ñu xoolee fii ci feuille wi lii leer na A0 bu ñu ko xoolee mooy lan A0 boo xoolee moom mooy feuille yi lii nga gis nii lépp A0 la lii nga gis nii lépp ñaari côté yi yëpp lii lépp A0 lañ koy wax. A0 bii nag boo ko xaajee ci digg bi moom moo la jox lan moo la jox benn A1 kon A1 bu baax kon na tool toll ñu fii nii wax ci nii cadre bi ngi lépp noonu la A A1 di toll bu ko defee ne A1 bi boo ko xaajee ci digg bi moo nekk nii bu mooy nekk lan moo nekk A2 bi moom boo xaajee ci digg bi mooy tollu lan mooy tolloog A3 nga benn xaaje A2 kese mooy tolloog A3. A3 bi xaajam benn xaajam kese mooy tolloog lan mooy tolloog demi-am mooy A4 A4 bi tamit demi-am mooy tolloog A5 A5 bi tamit demi-am mooy tolloog A6 A6 demi-am A7 waaye boo seetloo ci marché bi souvent fooy wii ëpp boo xam ne moo gën a ndaw bu ñu jaay mooy A0 mooy A4 bu ko defee nag bañ yoo xam ne ci A5 lay nekk kon da xam ne kon boobaa dañ ko bind ci A4 daal koy lem. mu bu ko defee mu jox ñu A A5 waaye comme paquetu A5 yi A6 yi xëy na am na waaye nag xëy na kon boobu gisaguñ ko ci marché wala boobu bëriwu ci bëri koo xamee ne tax nañu naan tasaaru na fi kon A4 mooy A fooy bi nga xamee ne moom bu dee ay A3 ay yooyu mooy calendrier ak yooyu la noonu dëgg yàlla moom dañ ko faral di gis bu baax bu ñëwee ci ñi nga xam ñoo jaay papier yi dañ ko faral di fekk bu ko defee it photo yi tamit bu ñu ñëwaatee ci biir tamit dalay gën a tamit boo xoolee lu bëri lii nga gis nii lépp li mu buñ ko xaajee ci digg bi nag ah, benn xaaj bi moo tolloog A1 A1 boo xaaj ci digg bi moo tolloog A2 A2 boo xaaj ci digg bi moo tolloog A3 A3 boo xaaj ci bi moo tolloog A4 noonu la koy continuer ko muy jeex yëpp benn bu ci nekk rek exemple la yoo xamee ne boo xamee bu njëkk bi rek yëpp boo xoolee A0 A1 A2 A3 wax naa leen ne numéro bi du muy gën a yéeg rek dangay gis ne li ma fu papier bi di mesurer dafay gën a wàññeeku kon boo demee tamit ci li ñu mesuré boo xoolee fii daanaka informe na la A0 kat mi ngi mesuré ñaata 84 virgule 1 fois 118 virgule 9 centimètres noonu lay mesuré kon rëy na lool bu dee A1 ñaata lay mesuré boo xool mi ngi mesuré 59 virgule 4 fois 84 virgule 1 boo xoolee fan mi ngi gën a wàññeeku A A2 di mesuré ñaata 42 virgule 0 fois 59 virgule 4 A3 di mesuré ñaata 29 virgule 7 fois 42 virgule 0 A4 li ma jëriñ ñaata 21 virgule 0 fois 29 virgule 7 A5 li ma jëriñ ñaata 14 virgule 8 fois 210 2 21 virgule 0 boo xoolee yii yëpp fooy wi ci nekk rek lu numéro di gën a yéeg dangay gis ne taille bi bi nga xam ne moom lay mesurer dafay gën a wàññeeku kon yaakaar naa xam nañ léegi lan mooy A4 ak façon fooy yi nga xam ne moom moo am kon dañu naan continuer tuuti rek ci leçon bi ñu ko doon waxee léegi. bu ko defee comme ni ngeen xamee kon lii mooy A4 mooy A4 bi boo xoolee porteur mooy dafa taxaw A4 bi dafa tëdd waaye bu ñu bësee fii ñu bind lan autour taille de page vierge mooy que ni yeneen façon taille page yoo xamee ne binduñ ci dara yaa xool ba gis bi nga ci bëgg buñ ci liggéey nii dañuy indil ay exemplaires yu bare bari A4 waxoon naa léegi ne mi ngi mesure ñaar bu fekkee dafa nekk paysage mi ngi mesure 29 virgule 7 fois 21 centimètres bu taxawee di mesure ñaata 21 fois 29 virgule 7 lan moo tax ñoom ñaar ñëpp nekk ay a te ñoom ñaar bokk nañu ma mesuré c'est normal ndax bu fekkee dafa tëdd maanaam kon bu bu ñuy calculer dañuy njëkk a tudd li ñuy woowee lan longueur bi bu fekkee ne dafa tëdd nag bu ñu mesuré la lañ njëkk tudd mooy largeur bi boo waaye boo xoolee 21 bi boo xoolee moo nekk nii 29 virgule 7 bi moo nekk nii amul leen loo xam ne fooy moom mu tëdd ak mu wàññeeku yokkut ci fooy bi dara wàññiwut ci fooy bi dara waaye ci position bi ñu taxawee moo tax boo tëddee ñuy calculer. ñu njëkk a tudd lu ñu woowee bi bu tëddee ñuy njëkk a tudd lu ñu woowee largeur bi loolu moo xoolee ma nekkaat nii ci a cinq bi boo xoolee bu taxawee wala bu tëddee day mesurer 21 fois 14 virgule 8 waaye bu taxawee di mesurer ñaata 14 virgule 8 fois 21 centimètres lii di A3 di mesurer 42 bu tëddee mooy paysage bi bu tëddee di mesurer 42 virgule 29 virgule 7 centimètres waaye it bu fekkee dafa taxaw di mesurer ñaata 29 virgule 7 fois 42 virgule yii yëpp ay façon taal b cinq B5 portrait B4 B4 lettre yii yëpp ay façon euh, passe la yoo xamee ne bu fekkee ne modèle yi la euh, euh, publicité maanaam proposé neexu la ma nga dugg ci fii nga xool fi bu ma neexee it bu fekkee ni yëpp benn neexu ma ci bëgg ci benn damay ñëwaat fii ñu bind lan créer une nouvelle taille de page fii moo ci ki liggéey ni damay indi benn boîte dialogue boor jarab bi lan moo ci nekk boor jarab bi macha allah euh, danaa indil fii li ñu neen une page par feuille mooy que ni euh, li muy bëgg a defar lu ma doon moo xam kat ma mat ma ma lu ma doon bu ma occupé bu ma demee di ko defari ma am benn page kese laa ci am yaa ngi dégg nga xam ne bu ma bësee fii ci presse bi may indil beneen option yoo xam ne yeneen option yoo xam ne boo ko defee bi ma amoon léegi fii livré mooy que ni bu fekkee ne damaa bëgg lan mu nekk forme livre gis ngeen nga xam ne dafa mel ne ni lay tijjee ko bu ma neexee it ma def ko mu nekk lan forme courrier électronique boo xoolee moom ni lay mel bu ma neexee te ma tànn bi di ñëwee rek forme enveloppe boo xoolee ni lay mel bu ma neexee ma tànn forme carte pile nga xam ne mooy carte yi nga xamee ne dañ koy lem bu ma bu ko defee nag bu ma tànnee carte pile bii damay am fi benn option bu ñu woowee lan naka la carte bi di tijjeekoo ndax dafay tijjeekoo comme nii nga xamee ne comme nii nga gisee nii xam ne kon bu waa foofu nii dee tijjeekoo au lieu que mu tijjeekoo nii waaye bu waa nii lay tijjeekoo jëm nii yaa xool boo neexee mu tëjee ko lan euh, demi bi maanaam dafa gën a gudd boo neexee mu tëjee ko biir mi demi bi waaye dafay gën a dafay gën a gàtt ça ci ni nga xamee ne nu nga ko bëggee bu ñu war a defee tamit ci ci ci côté ci disposition yi tamit am nañ fii lu ñu woowee leen plusieurs pages par feuille moom boo xoolee boo ci cliquer moom it am na yeneen option yoo xam ne moom mooy ñëwaat ci ginnaaw bi bu ñu ñëwaatee ci page web bi moom it boo xoolee moom comme forme électronique courrier bi xaw nañoo nuroo lool buñ jëlee lu ci mel ne frisé par par feuille yu fii mooy que ni moom dafay jël benn feuille yi mu defal la ci ay page yu baree bari exemple a lu foo xoolee moo nekk fii A4 boo xoolee moo nekk nii benn a bi ci biiram ma ci defal ay page yu baree bari yoo xamee ne benn page bu nekk mi ngi mesuré ñaata mi ngi mesuré virgule 8 virgule 9 centimètre fois 5 virgule 8 centimètres 0,8 centimètres ci largeur ak ci longueur ak ci hauteur bi nga xool ne boo xoolee benn paas bi kese benn bii kese boo xoolee mooy mesure loolu benn bii kese mooy mesure boo xoolee bu ma yokkee fee nga gis ne gis nga ni muy yokkee gis nga ni muy yokkee fële ci koñ bi bu ma ko wàññiwaatee tamit nga gis mi ngi wàñ mi ngi wàññeeku a ngi gis ça dépend ci ni nga xam ne ne noonu ko bëggee bu dee fii ci hauteur bi boo xoolee nu ma ko gën a mu gën a rëy waaye it nu ko gën a wàññee moom it gën a wàññeeku kon moom it benn bu ci nekk rek ak ni nga xamee ne moom moo ci nekk bu ko defee nag euh, ci a bi ma ko bëgg a tiire nii bu ma neexee man maa a bi yokk feuille bi wala ma wàññi ko exemple bu ma duggee ci bi fii nii mën naa ko wax ne ko lan na ko personnaliser bu ko defee nag bu ma defee personnaliser nag bu ko defee boo wax jëmmi feuille A4 bi boo xoolee mi ngi mesure ñaata 21 centimètres fois 29 virgule 7 centimètres mën naa ko gën a yokku yaa ngi gis boo xoolee feuille bi dafa gën a yokku yokk ci lan ci côté boo xamee nan nga ko bëggee sa dépend ni nga ko bëggee yaa xool ba gis ni nga xam ne nga bëgg bu dee fii nit 29,7 la mën naa ko gën a yokk mu gën a yaatu ba fooy gën a yaatu boo ne nga bàyyi ko ne comme ni mu nekk sans départ ci ni nga xamee noonu nga ko noonu nga ko soxlaa bu dee ci marge yi moom it noonu laa ko mën a soralee ci marge yi marge latérale yi pour mu gën a dem ci côté bële yeneen gis ñuy poussé jëm jëm na le bu ma neexee mën naa ko bàyyiwaat ni mu nekk ci kii bi mu nekk ci digg bi noonu nga xam ne du dem fenn bu fekkee ne fii nit maa ngi mars supérieur mooy ci kaw boo nag gis nga ni ñuy wàccee ngay wàcc ci suuf gën a wàcc boo neexee mën nga ko gën a yéegal boo neexee mën nga ko bàyyi balaa nekk ci centre bi nga xam ne dafay nekk ci digg bi bu dee ci fii ci li ñuy woowee espace horizontal yi ak vertical yi ci laay sorile jëmmi carte yi exemple bu fekkoon woon dafa benn carte membre tey carte membre bi ma war koo defar ba pare nga xam ne dama war a jël si sa war koo dagg bu fekkee ne dañoo taxaloo kon mën na maa dagg mën na maa jum daal la la lu ma bind wala benn boo xam mi ngi ci kon li gën mooy lan man xaw koo sorile boo xam ne bu ma amee ciseau wala lente di ko dagg damay ñëw jaar ci digg bi du ma benn problème bu dee échelon vertical yi boo xoolee moom boo ko soralee moom it nga xool euh, benn bu nekk espace boo ne benn bu boo ko am benn problème yéen a ngi nekk dafay am benn espace boo xam ne moom lay boo koy dagg doo ci boo euh, ko defee nag man heure bu ma tànnee li may tànn fii ba pare nag lan laay def damay cliquer fii ok boo gisee ok boo seetloo fii gis nga ne fii li nga mujjee defar mooy li nga mujjee mujjee page bi nga mujjee personnalisé indi la ko fii mooy que dalay na la fii enregistré naa la ko fii heure boo ko soxlawaatee beneen yoon xëy na nga soxla bari du aajo nga ñëw di créé beneen waaye man maa ñëw kilo ko fii benn yoon mu la ko. bu bii nii mu nii bu ma ci nii ci clic droite mooy clic benn mooy ci souris bi clic droite bu ma neexee mën naa beneen daal dugg ci biir nga xam ne moom mooy créé boobu bu ñu neexee it ci foofu. ma dugal ko dugg bu gën a gaaw bu neexee di ko moo nekk nii dina ko entré boo neexee nii ma ñëw modifié ko fekk am na la ma jum mën naa ko modifié waaye tamit bu ma bëreetee toujours ci clic droit mën naa ko entré personnalisé nga xam ne boobaa comme yeneen leen maam beneen leen nekkaat gis nga ñaar yëpp ñoo bokk même chose bu ma neexee it mën naa ko def li ñu wooye leen entré même modèle même modèle boo xoolee bi ñu dugg ci page bi boo xoolee moo nekk nii fii mooy même kii bi ci même même modèle bi moo nekk nii ma jum mooy mooy fii ngeen gis nii fii am nit ki boo xoolee am na fi ñaari yu fi nekk gis nga moom boo ko ci enregistré boo neexee nga am na ay modèles yoo xam ne xëy boo ñëwee ko enregistré foofu foofu lay nekk bu fekkee nag yooyu yëpp neexuñu mën nañu ko supprimer bii ci supprimer waa supprimer wu bu ko defee nag bu ñu créé suñu page yi nii ba noppi boo seetloo bu ñu ñëwee fii nii ñu tànn exemple couleur beeg yi nga xam ne moo ci façon mi ak yi ci aju yi mboolem ci aju bu ñu bësee créé nii da nga gis ne dalay daal di indi ci page bi ñun ñu seetlu ne bi ñu créé léegi ci page bi prisé par portefeuille page yu baree bare moo nekkoon doon feeñ ci fenêtre bi nekkoon foofa waaye bi ñu créé ba pare bi ñu ñëwee gis nañu fii benn page kese moo ci nekk loolu amul problème yow xamal ne yow page bii nga am fii nii loo ci mën a bind ak lu mën a bari bari wala lu mu tuuti tuuti xamal ne am nga ci lu tolloo 10 euh, wala lu ëpp ci ay page exemple bu fekkoon tey ji dinañ ñëw sax ci taxi yi ni ñu koy saisir ak yi nga xam ne moom moo ci aju yëpp waaye jël exemple bu ndaw rek tey ji bu fekkoon may dafa fii benn carte barkeelu exemple mu dafa fii carte barkeelu exemple carte barkeelu exemple euh, carte barkeelu Serigne Ndam Abdourahmane Lo exemple Serigne Ndam Abdou boo xoolee bu muy bind nii boo gisee mu xonq nii rek xamal ne dalee wan na la texte bi xajatut xajatut ci fan xajatut ci biir case bi ngay bindee imma mooy benn nga yokk ko nii comme ni nga ko xamee woon ci yokk wala boog nga sélection texte bi da koy wàññi ñaari yëpp ay option yoo xamee ne yaa xool bu la ci neex laa ci ko di def moo bindee nii pare carte bi euh, pare naa ci bu ko defee carte bii nii nag bu ma ko sélectionné wala boo ma def ci li mu ci war a def léppam jeex xool leen bu ma ko enregistré pour mu nekk forme pdf wala boobu bu fekkee ma ko doon exemple naa ko def mu nekk forme pdf naa ko tuddee composition 6 wala naa ko tuddee carte exemple naa ko enregistré ci bureau bi ndax mu gën a neexe seet ma def lan ok ma daal di génn mu génn ba ci biti bu ma xoolee moo nekk nii carte moo jëkki liggéey nii xool leen bu baax ndax benn carte lay indi wala boog dana indi plusieurs carte ci yéen li ma doon defar gis ngeen boo seetloo leen wax ñëw na mooy que ni defaral na ma lu toll plusieurs carte par feuille gis moo nekk nii deuxième carte moo nekk nii troisième carte quatrième carte cinquième boo xoolee boo wàccee da nga gis ne fii lépp ay kii la yoo xam ne rangé bu si nekk rek boo xoolee defal na dafa ñaata carte nga xam ne boo xoolee muy huit boo xoolee tamit carte yi ni mu mu toll nii moom mooy dañ ko réglé woon mu nekk lan mu gën a tuuti nekk 8 boo xoolee distance bi am nii mooy ni mooy bañ koy sorale distance bi am fii tamit mooy bañ koy sorale bu ñu neexee ni mu soree nii bañ koy réglé mën nañ def mu gën a jege waaye toujours rek sans départ ci kenn mooy defar pour nga mën ko réglé kon loolu mooy li nga xamee ne bu fekkee ñoo tànn li ñu wooyee plusieurs passes par feuille li nga xamee ne dañ ko ci mën a am kon li nga xamee ne moom mooy obligatoire ci ki nga xam ne moom mooy tànn ay modèle boo xoolee fii nii modèle yoo xam ne neexu ko wala bokk yi yi ñu defar yëpp benn amu ci benn bu bëgg ci bëgg maanaam dafa bëgg a créer propre modèle boppam affiche boppam dafa ñëw ci autotaille fii autotaille boo ci duggee am na fi ay modèles yu bare bare yoo xam ne ay ay ay feuille de feuille ci ay A5 A3 ak xool boo ci bu leen fekkee ne yooyu benn neexu ci ma ñëw ci créer une nouvelle de page ma xool fii sama page ndax benn feuille kese laa bëgg ne bu fekkee benn feuille mën ngaa bàyyi kon bu an lay def damay wàññi fii taay bi ak wàññi wàññi fii li nga xam ne mooy hauteur bi bu dee damaa xool fii nag ci option bi fii moo xam bëgg ci beneen bëgg nga cliquer ci fekk principal profil la bëgg bu dee fii moom loo ci réglé bu fekkee ne da nga ko bëgg mu nekk ci A4 bi nii nga bàyyi fekkee ne bëgg ko ci mu nekk ci A4 bi mën nga ko personnaliser bu ma ko personnaliser mën na maa gën a yokk fooy mu gën a yokk waaye te mën naa ko wàññi mu gën a wàññeeku loolu lépp sans dépendre ci ki xam xamee ne moo defar fooy kon mbokk yi léegi xam naa njort naa ne xam ngeen lan mooy définition bi nga xam ne mën a jox publicitaire bu ñu la waxoon lan lay jëriñ waaye yaa ngi commencé di am tuuti xam-xam ak tuuti euh, dem tuuti xalaat ci application boo ñëwee publicitaire kon ngir bañ a guddal lool lool ngir xa buñ guddalul ba pare sax dañuy daal taxaw fii incha allah bu ko defee incha allah leçon bii di ñëwaat bu soobee yàlla danañ ci leeral laat yeneen yoo xamee ne bokk da yi nga xamee ne mooy ci nekk kon toujours rek comme ni ko daan defee suñu njëkk yee dañ daan faral di leeral base yi nga xamee ne buñ ko leeral ba mu leer ki nga xamee ne mooy élève bi bu ñëwee du am problème ngir mën koo utiliser kon loolu moo taxoon ñu doon leeral yooyu waaye incha allah des na biir ñëwaat nañ ci leer leeralaat mboolem yi nga xam ne moo ay ñoo caaju wala boog yi ci ëpp solo ci kàttanu yàlla seen mbokk Mourtala moo nekkoon ci dañ eh, jàkkaarloo doon wax ak di leen jéggalu ci lépp loo xamee ne juumte la wala ñu wax ko te demeewul noonu loolu nekk doon suñu jubluwaay li nekkoon suñu jubluwaay mooy jariñ leen te yàlla tax di leen jéggalu bu baax wax képp ku gis loo xam ne juumte la nañu ko jéggal te xam mata doomu aadama la lépp lu ci baax wala sama nur lu baax xam leen ne ci ndimalu suñu borom la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi إذ جميعنا الصراط المستقيم وبسعيد كلنا بلا سقيم لك الكتاب يا غريب يا مجيد يا من لي لا تغني خير مجيد هب لي وللذين فاتانهم يا هدى لي خير مطلقون إياك نعبد ونستعين فإنك المحمود والمهين دلتنا بك لنا